asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu eh, ci banqaas boobu ñuy wax al ilmiya wa ca kanam ñoo ngi leen di jottali ab nuyoo bu jugee ca kilifa ya fa nekk Touba ca kanam dafa dellu siwaat ci ni mu ko baaxoo bu koor gi jubsee taxawaay yu am solo yi nga xam ne daf koy taxawee ndax jëmi Touba ci kanam moom ñëpp xam nañ ne jëmi Touba ci kanam mooy social kon nag ñaari bànqaas yi di bànqaas bu social bi sëriñ Mouhamadou Mourtada nekk ca bopp ba ak bànqaasu euh, euh, scientifique et culturel ñoom ñooy ànd ak yéen di leen defal jataay yi tey jataayu tey bi nag muy as jataay su gàtt rek boo xam ne dañ koo bëgg a tënk ci li ñu tuddee iftaaru saayim iftaaru saayim dogal maanaam nit ki woor ba dog jot nga jox ko ndogu mu dog loolu nag duñ ci guddal bu baax ndax xam ngeen ne wàccuwaay bu rëy rëy la ci am la am ci lislaam eh, ndax joxe ndogu boo xoolee sax alxuraan day wax naa ne wa ala lazina yutiqunahu fidyatu taami masakin bu njëkk njëkk laata gi nekk farata Euh, ci weer wi yépp nekkandoo ko ci ñëpp dañ daan def ki nga xam ne daa am ngàntal koor bu joxee ndogu rek loolu mën koo doy kon bu ñu demee ba yàlla def koor gi nag daal di doog a nekk farata mën naa am maanaam ci weer wi yëpp loolu rek déggees na ca euh, wàccuwaay bi nga xam ne moom joxe ndogu am na ko bu ñu demee ci riyaadu saalihin euh, imaam Tirmisi andi fa ab hadiis boo xam ne am na ay ay ay yu bari am na ay yoon yu baree bari muy wax naan man fattara saa'iman kaana lahu mislu ajrihi xayra annahu laa yanqudu min ajri saa'imi shay'a muy wax na nit ki bu wooree ba ngoon jot nga jox ko ndogu nga jox ko lu mu doge yow mi ko def yàlla jox na la yool bu toll ne yoolub aji woor joojee nga jox ndogu waaye nag tekkiwul ne day wàññi dara ci ab yoolam déedéet du wàññi dara ca yoolub wooram boobee mu nekkoon loolu nag mbokk yi mënees na cee dégg lu baree bari joxe ndogu fii ajrun wa maanaam yool da cee nekk ak tuyaaba ju rëy ba tey joxe ndogu fihi fihi i'anatun ala albirri wa taqwa joxe ndogu di ci dimbalente ci yàlla rek tax ci nit ki ni muy fexe ba jàpp ba topp diineem ak mën a sàmm ngorom da cee nekk naka noonu it bokk na ci joxe ndogu nekk na ci mooy saddu xaajati saay maanaam aji woor ji nga dimbale ko ci aajoom ji mu bëggoon beele daal koy mottali ba tey joxe ndogu saraxa saraxe da cee nekk moom day wenn sànniwu wu rëy woo xam ne daa bari yu mu yu muy yu muy yu muy larewaale yu muy larewaale eh, muy itte yi nga xam ne yaa ngi koy jël di ko doxe gis nga yii yëpp mu boolewaale ci xam ngeen ne yooyu benn boo ci jël rek ab bunt la bu rëy rey ci lislaam boo demee ci ci naan am na bunt bu yaatu bu Sëriñ Tuubaa eh, jagale faslun fi fi sadaqati wal infaq fi sadaqati wal infaq rek la ko jagale daanaka bana bana bint bana bunt ba jeexee moo tax bu ñu tollee ci jamono yii rawatina koorug ren gi di 1441 ci hijriya gi di koorug 2020 daa di tombe ak mbas mi fi yàlla indi xam nga ne aajo ji lu mu amoon rek dana gën a far dana gën a far lu ko nit aajo woon rek ren ci lay gën a yaatu nu ko nit daan defee it ren ci la koy gën a war a gën a mane rawatina ñi nga xam ne bu koor gi jotee daan nañ waajal di def ay xumra yi ni mel cere ñu gàn ñu gàntal nañu xam ne buntukat bu niroo ne daa am bunt bu tëju it am na bunt bu rëy rëy bu tijjeekuwaat ci seen wet boo xam ne li ci ñëw ci addis wala liñ ci mën a wax ci ay nusuus ci ay ayaati alxuraan du xat ci jataay bi kon nañu xam ne ñoom bunt boobu tijjiku na ci ñoom tijjiku na ci ñoom ca loolu mënees naa wax ne mooy ñëpp rek na ñëpp jàpp ne rek buntu boobu bunt bu rëy la boo xam ne tijjeeku na ci ñoom eh, eh, donte nag xam nañ ne am na bari na ay yu koy taxawe waaye Touba ca kanam dafa matale dafa matale ci ci ci taxawaay bi moom yemul rek ci di di ko jox mu lekk ak mu naan waaye ma ngay xalaat ci la koy wodd ma ngay xalaat ci la koy jox joxum ndox ma ngay xalaat ca ma ngay xalaat ci ma ngay xalaat ca xalaat ci yu baree bari gis ngeen fan yëpp mbokk yi ñu ngi ciy gaaral ay mbir yoo xam ne bu fekkoon ne du bañ du du du bëgg sell gi nga xam ne e, Touba Ca Kanam daf koy doxee dana gën a yaatu waaye wane ca fësal ca lu ndaw rek ngir bëgg a mbokk yi ne leen ah lu mel nii kat am na ci suñu dëkk bu tedd bii di Touba mooy am nañu ko fi teewlu bu baax a baax ca sëriñ bi waxoon na ci masaalik ne joxe ci yàlla rekk tax nag. tadammanat aydan rida allahi wa xama iblisa laina saahi fiiha ixtinaamuna duaa il faq fuqara mahal masakina liman qad sabara mu ne bokk na ci njariñi joxe ci yàlla tax daa làmboo ngërëmal ngërëmal sunu boroom day làmboo njàqareel iblis day tax yàlla wërsëgale la ñaan goo xam ne ñi aajowoo euh, fuqara yi ak masaakiin yi ñoo la koy ñaanal ca ñaan googu du nekk ñaan goo xam ne gu dara du dox sa digganteeg la tax ñu koy nangu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam sax wax na ci beneen hadiis daan ne asaaxi alal armi alal armila wal masaakiin kal mujaahidi fi sabilillah euh, euh, kii net li hadiis bi daan ne xaala ka saaimi laa yaftur wa kal xaaimi laa yaftur wa ka saaimi laa yaftur maanaam eh, mu ne ki nga xam ne day dox ci itte yi ñi nga xam ne dañoo ñàkk ak miskiin yi rawatina baay yooyu ñi nga xam ne seeni kilifa dañoo jiitu ji bàyyi leen fi soxna yeeg yi ni mel mu ne kooku dafa mel ne nit kuy jihaat ci yoon yàlla ki nga xam ne day dox ci seen aajo day mel ne kuy kuy ci doon ci yoonu yàlla daan ne eh, jàpp naa ne sax tegoon na ci moom yonent bi daan ne dafa mel ne nit ki nga xam ne day fanaane naafile guddi di yendoo woor cëg yépp ci du ci am arrêté taxayal loolu nag mbokk mi imaginer ñaata boroom yi am am nga xam ci nga xam ci sa wet yoo xam ne bi ñuy jógee bi ñu fi jógee du ñu waxee lim bi ñu bàyyi seen ginnaaw mbokk yi dañoo tiit am na ci ñoo xam ne sax yàlla mën na leen a nattoo loolu ñu yoroon ña ñu koy bàyyeel ab safaan rek lañ koy def yow mi nga xam ne nag ku yàlla wërsëgale la nga yaa ngi dund ba léegi fexeel rek waay bay jël ca sas tuut soosu nga yoree kus néew di ca rawalee as tuut ca fa nga jëm loolu moom tukkikat bi dana ko dégg lool ki nekk ci tukki di def weer wu jot ca la muy gañe mu copp mu comp ca tuuti daat koy yónnee waxtu wu demee ba ñibbi mu dëkkoon rek dana gis njariñul tukki bi dana ko amal njariñ lool ci yonente bi it alayhi salaatu wasalaam wax ci beneen addis daan ne ahabu nnaasi ilallah anfa anfahuhum linnaas wa ahabul amali ilallah sururun tudxiluhu ala muslim aw taksifu anhu kurba aw tatrudu anhu juan aw taqdi ki yàlla gën a bëgg ci mbindeefam yi ci doomu adama yi mooy ki ëppal njariñ nit ñi daan jëf ji yàlla gën a bëgg ci jëfi doomu aadama yi it mooy mbégte moo xam ne dangay fexe ba tàbbal ko ci xolub ab jullit imagineel ki woor doon xalaat fu muy fu muy ndogujee nga warlul ko ne ko koor gi ndax fi mu ne nii boo demee ci réewi tugal yi bu weer wi tàmbali nii rek boo xoolee jàkkay naar yeeg jàkk yeni mel loolu suñu mbokk yi nekk bi biti xam nañ ko bu baax da gis benn liste bu mag boo xam ne dañ ko fay dañ ko fay dañ koy def ci buntu jàkka ji daal di wax ne képp koo xam ne bëgg naa def iftaaru saayim da ngay bind am na ñoo xam ne dañuy bindu 10 euros ne bis bu set tey tey 10 euros warlul naa weer weer weer wi bis bu set 10 euros maanaam 300 euros ci weer wi muy 250 mille fii it xam naa ne lu mu néew néew ku xayma woon lu mel ne eh, loo nit mën na caa doge lu mel ne 2000 francs exemple rek boo doon xayma daan ne bis bu set man sasoo naa bis bu set dogal kenn ba weer wi jeex bis bu set ma sasoo mille gis nga du doon dara rawatina ci ñenn ñi 60 mille rek lay doon ci weer wi ci loolu jàpp naa ne lim bu gàtt rek bu ñu ko defoon danañu gis ne ñu baree bari danañ ci mën a danañ ci mën a bénéfice ca fi mu ne nii am nañ ci ñoo xam ne lu bare bari ci ñun man ngi am na ci jamono jii la waykat boo xoon ahsin isa kaana imkaanun wa maqdiratun falan yaduuma xalal ixsaani imkaanu li nga man tey moom du dee sax toujours ci àdduna nag bàyyil xel ne occasion rek la loo ci man tey rek profitel def ko ndax xamoo kañ ngay tële ak yéen jamono ngay tële ci alxuraan nee na إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا maanaam ñi nga xam ne dañuy saraxe ci yàlla rek tax ci nekk ay góor wala ñu nekk ay jigéen muy wax daan ne cay lebal yàlla ab bor bu rafet ñooñu suñ borom dana leen fay ëllëg fay goo xam ne bu ñu demee ba gis ko rek danañ xeeb lépp luñ ci doon mën a doxee ba tey bokk na ci. itaamul masakin yi ñuy def bokk na ci eh, eh, dogal aji woor ji ngay def am na hadis boo xam ne wax na ko ci min mi eh, daan képp koo xam ne dogal na aji lam koy jural mooy njëggalu yàlla man fattara fiihi saa'iman kaana maqfiratan li tunubi wa ittu raqabatihi min an naar képp koo xam ne nit ki woor na ba dog jot nga jox ko lumu mu ndogoo yàlla dana ko jéggal bépp bàkkaar dana ko goreel ba tey ci sawara kon nag mbokk yi faaw ñu ànd bennoo ngir lii sëriñ bi ñaan ci dëkkam bii muy ki fi nekk ak tum ak tumranke wan ko ginnaaw ba mu mel ne moom moomu fi mu nekk sax moo koy gënal moo koy gënal kër baayam wala kër yaayam loolu mu waxoon ne waltu basir bi yal yataama dawaaman ansihim bi abaahum kulla xiini yow suñ borom maa ngi lay ñaan te gis nga la ko jiite woon wa biyan faa dunya wa oxra ayaali munqitan kulla saailin wa madini wal tubassir biyal yataama dawaman ansihim bi abaahum kulla xiini yow suñu borom maa ngi lay ñaan ngay jariñ ci man eh, àdduna ak alaxira sama njaboot bu ñu nekkee fi man ñu fay fekk njariñ li ñu mën a jariñoo ki nga xam ne daa ñàkk wala ki nga xam ne daa ki nga xam ne daa ñàkk bay laaj wala ki nga xam ne dafa ami bor bu ñëwee ci man rek mu daal di xettaliku loolu nag mbokk yi ñun taalibe Sëriñ Tuubaa yi rek ñoo mën a dëgg ñooy ñi war a dëggal bayit yooyu sëriñ bi ñaan waaw daal ci àgg nag ba ne waltu basir bi yal yataama daa man jërim yi bu jërim yi ak baa yooyu bu ñu nekkee ci man maa ngi lay ñaan yow saa boroom sa fi man di neex ci ñoom ba ñuy fàtte seeni kër baay waxtu man di di doon yonente bi alayhi salaatu salaam waxoon na ci addis bu gudd a gudd ne fa taqu naar walaw bi siqi tamra daan ne dee leen wut lu leen di fegal sawara ba du leen mën a laal du leen mën a jege fenn donte loolu aw xaritu tàndarma wu ndaw la alxuraan ñaata yoon la soññe ci al infaq fi sabilillah ha ha antum haulaai tudaawna li tunfiqu fi sabilillah yéena ngi nii di woo nit ñi ngir ñu dépense seen alal ci yoon yàlla am na ci ñoo xam ne dañuy nay loolu la ci teg waaye koy nay boppam rek la ko def waaw ndax yàlla moom am na am na lu ko doy ca lii ay yiw la yum leen yéene ngir ëllëg bu leen bu ëllëg ëllëg fam leen di dugal firnde yi man a leer ca ña defutoon safaan ba ña ko defutoon ñu wan ne ñii kat li tax ma fay leen lii dama leen a def la woon lii ñu nangu ko am na beneen addis boo xam ne yonente bi alayhi salaatu salaam mi ngi ci wax ba tey daan ne eh, ki nga xam ne daa woor daa woor malaayika yi dañuy julli ci moom bu fekkee ne danga dafa woor ba dog jot ay nit ñëw ndogoo fi moom malaayika yi dañuy julli ci man dañuy ñaan yërmande suñ borom xéewali suñ borom dañuy naan si ñoom fii ak nit ñaa nga fa moom di lekk ba ba keroog ñuy rek rek hadis boobu umu xamaara moo ko nette al ansaar yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam yi daan def naan aftara indakum saaimuun wa akala taxaamakum al abraaru wa sallat alayhim al malaayika buñ joxee ndogu daal yooyu daana ko wax kon nag li sëriñ bi di wax ci masaalik rek yow mi nga xam ne as tuuta ngi ci sa poos in kunta saaxinnan wala taxtakiri maalan ilal xaddi li xaw fi darari bu fekkee yàlla jox na la as ci sa poos rikk rikkawaay bul ci jiima rënk looy xaare ëllëg ndax xamoo da ko fekke wala déedéet alal ji ngay bàyyi ci sa ginnaaw xamoo da nga fekke subaam déet fexeel ba yónneel ci sa bopp la lay jariñ ëllëg bala ngay àgg foofe bala ngay àgg foofee ca foofa kat lu fa waay defoon ci aw yiw bu demee xeeb ko du doy ca bu demee ba nit ki bëgg a faatu buy ñaanaat possibilité pour ñu delloo ko ci àdduna ngir mu saraxe la la yàlla la alxuraan tudd fa asaddaqa wa akun min as-saalihiin ngir ma mën a joxe joxewaat dara saraxe ngir mën a bokk ci saalihiina yi waaw am na faneen foo xam ne bi naan rabbi rji'uun la'allii ahmalu saalihan fii ma taraktu suñ borom maa ngi lay ñaan nga delloo ma waa àdduna ngir ma mën a joxe tuuti ci lu baax li ma yoroon li ma nar a bàyyi sama ginnaaw kalla innaha kalimatun huwa qailuha baat lay doon boo xam ne bu àggee foofu da koy wax rek waaye du ko mën a euh, duñ ko mayaat sens ndax foofu may sens du fa amee loolu daal ci jataay su gàtt si moom la ñuy tënk kon ci fàttali tay bi euh, rek ngir ñu mën a xam ne dogal aji woor bari na ci lislaam ay njuumte yoo xam ne bu ko nit defee ci koor sax dañ koy laaj pour mu fiddee da danga gis nit ki nga xam ne dana àgg ci jàngoor foo xam ne mënatu woor dañ naan ko dell bisu set del leel del del leele yow mi nga xam ne nag yaa ngi woor ba pare mën a leele buntub àjjana bu réy réy sa borom te tëjjil na la ko ca mu jege la lool manu ci yow waxtu wu nekk yaa ngi def ay financement yi ko ëpp doole ca da ngay jekk-jekk rek gis xaalis bi wàññeeku waaye daanaka fa nga ko def feeñu fa ca xamoo ne fan la fii nag waxees na la ne bëggu sa borom la yaakaar naa leer na ci yow fàttali nañ lay ne la bëggu li ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ca muy bëggug sëriñ Tuubaa loolu la tey commision scientifique àndoon ak yéen di leen ko fàttali seen mbokk doon leen ko defal Saalihu Jaxate bu sëriñ As Daarul Maarif al Islaamiya wajhal xarimana xariman amina wa kun bi xifsihi kafilan daamina yaa rabbi ijaalil muridina maa fi isnikal asini wa samlaj maa ñoo ngi dog ngant ñëpp di jéglu ñëpp